jarbaatu Seex Abdulo naa mbar ma moo rey mbir waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn tondoon gàggar gaaya gagoon ca lawxu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan naa gëm sëriñ baara fa fa yàkkoon la dàmbee xam-xamub ikaman booleb sirub alxuraan maagam sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam mbindum sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam mbindum sëriñ baara ca alimul xaybu la tabe sëriñ daara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawiru bunyaanum sëriñ baara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawiru bunyaanum sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam ca xaybu lañ tëbbe sëriñ baara ca géeje xëy bu la naan ba di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeje xëy la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara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 barke Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara koo xam ni ki mënu ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaak labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu tëddoo Cheikh Bamba doo ku mujj no ci tollu yoroo ndombay Sëriñ Baara Kharba ki Seex Bamba ak mbootam yu ya mu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug Sëriñ Baara xar baaxu Bamba ak mbootam yu ya mu ak muxjisaatam ya ñooy xeppug Sëriñ Baara mboolam mi laayoot Sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la fi sen do ne day baax ak serigne bara mboolem wilaaya ak Serigne Touba ga la ya sakaam la seex si seddoo ne day baa nga ak Serigne moo doon Seex Bamba moo gëm yàlla xam la ko war te sopp njool Makka moom Sidi Lamin Baara moo doon njàmbaar ga ak fitam wu rëy wa mu yor ku daje ak taalibeem xam kër Serigne Baara. seexal na sa ñaan mu jaara géy ci lu wér di seex yu mag bari xam-xam ngir sëriñ baara xoolal ci ay biram ñim def bàyyi ma ko kase du lakk fii fa ñu jëm jaajëf sëriñ baara mooy doomi soxna mi toloo mu am ma ngaram yàlla nu sawa may turandoo baara fana min daa gamoon Seex Bamba fekk ndigal ba dabi jànnatoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ku dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndoy sëñ baara maa ko bu soo bëggoo na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf ya baara bambayi ko foofa nag du toog gi ca mara la dal di wàccu liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla na rilwaanu ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara rilwaan di ubbi buntu ajanu bee kaawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh Baara jigéeni àjjana waajak seen takkaayi wurus di teeru soxna amin toloom sëriñ Baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Cheikh Moustapha ak fàlloog sëriñ Baara loola waral loola waral ba sëriñ Tuubaa sëriñ Fallu sëriñ Baara Cheikh Baara nag ba mu xamee ni doon xalifa la daal di wàccub liggéey jaaxal sëriñ Baara Cheikh Baara nag ba mu ni du doon xalifa la dàbbi jannatoo jaaxaan fa Baara ñeent fukki at la fi am ak yu defal a dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara ñeent fukki at la fi am ak yu tofal soog a dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara dem na fi lim a dem am na fi lim jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ Moranta Mbàkke ma woon fa léegi Mbàkke Kajoor jaajëf sëriñ Baara sagal na maamam sëriñ Moranta Mbàkke ma woon fa léegi Mbàkke Kajoor jaajëf sëriñ Baara gis naa fa Kajoor xéewal yi jëm abadan yoo xam ni dootu fa jóg lépp ak sëriñ loola waralaat mu jot doomam yu baax ya mu am ànd ak sëtam am màggal sëriñ baara ku di murit dëggal foo man di jublu de bum tee nga fas wala rek waa kër sëriñ baara ku di murit dëggal foo man di jublu de bum tee nga fas wala rek waa kër sëriñ baara am na ci yàlla ngërëm yonent bi xëy ko garam Cheikh Bamba xëy na garam Sidi Lamine Baara أقرأ عصمة وخير رسول لحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول سبقت غيري إلى الجنان مع النبي قرص الأدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابنا الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى غبي باهي حزبه ذو التقى soir